jot léegi waa ko ne dalaa dóor ne yow sax dem nga nekkoo ci plénière euh, wax jooju noo ko dégg bon may wax ni moom c'est moom mi ñu duma moom moo nekkul si salle bi te def naan moom ñu bina ma gis ni massage yi mu doon def jëriñu ko dara ndax li mu massé wu lépp jàpp ko duma ko fi ba bëgg a dee moom daw na mais wax ni kooku caaxaan rek caaxaan rek la mm-hmm. naa ni Mm-hmm. xam na ni man kenn moo la mm-hmm. tey daje na ak góor mm-hmm. pour peñ laa ko dóor mun jëpp daal parce que ma mi ngi ànd ak ay garde corps pour ñëw ci assemblée bi nga xamante ni nit ñi bëggul dara bay dem dem attaqué bi boo fekkee ma taxaw bu ñëw tamponné ma ma dóor ko nii rek la def teewul leen yéen a ko gis euh, ñu ngi nii ci biir assemblée bi te moom newu fi assemblée baa ngi nii moom nekkul ci biir assemblée bi daw na kon nag wax ji leer na. moom ñibbi na. parce que massage yi mu doon def jariñu ko dara. ma koy wax Sénégal yëpp ni mas na tey. très bien. jot na kurpeñ boo xamante ne. Mhm. man kenn du ma tàmpale. macha allah si man bu may ñëw je si seul. Mhm. ànd ak fukki garde corps ñëw di suuf loolu mooy lan.